match contre Real Sociedad ki li nga xam ni moo nekk Gavi wala boog Pedri ak ki nga xam ni Euh, moo nekk dayong danañ ca bokk bu àndeek dogalu borom bi nag kon Barcelone lu leen naqari woon euh, na leen neex ci xibaar yi ni door a commencé nii nag canta ngërëm ñeel na leen abonnement yi bu leen ko fàtte di leen wax ni aimé yi dana bokk ci li nga xam ne mooy yëngal euh, seen bi Bellingham moom it mi ngi belli ci biir li nga xam ne mooy xibaar yi ndax mënta ñàkk gars yi def leen seeni i abonnement baneen bi publicité bi nga xam ne am na njariñ lool ñu diglu ko bu ñu ñëwaatee gën a faram-fàcce information yi Messi ballon d'or bu ñu yëkkati jox ko ko mook jabaram loolu leer na mystique dëgg wala ñaan dëgg euh, boo ko bëggee da ngay wuti reen boo xam ni euh, bu jan la reen bi nag jan na torop Cheikh Issa Diène euh, surtout Cheikh Issa jenn borom la jën nag la gën 1947 ban koy dàkkantele moom moomee di ay xéwal yoo xam ne moo ko andil taalibe yi andil ko ñi nga xam ne mooy ñi nekk ci ay jafe-jafe andil ko ñi nga xam ne ay listixaar lan nen yi ngeen gis nag daanaka liggéey boo gis ci àdduna wala ngal kàpp toj ko léegi léegi en direct la koy def bu ko defee lépp lu nekkoon ci sa yaram ñu defoon ko ci téléphone yaa ngoogu ngeen gis ko jaaro yi nga xam ne nag mu ngay jóge ca diggante Dubaay ak Arabie Saoudi jaaro yooyee dañ koy commandé buñ ko indee mu roof ci lim ciy roof daanaka boo ko takkee lépp tew féex loole nag pour ngeen xam ko da ngeen di jokkoo ak moom ci buumu téléphone yi nga xam ne teg na ko ci taabal jaaro yaa ngoogu bu ngeen ko gisee xam ni soriwul makkatal mu karam loolee tamit am solo bu baax a baax caq ya wala li nga xam ne mooy ay ceen yoo xam ne wërsëg ak lépp ci biir listixaar gu gaaw listixaar goo xam ni aw yoon yow miy dem Europe wala faneen foo mën di dee kilifa gaangoogu da koy dàbbar a baax lépp loo xam ne na ci xeetu ñaan bàyyiwul dara mboole seen bu ngeen ko jokkee mu faj seen i aar numéro 10 du méngoog tey leen koy jox ndax li ñu koy jox tey juróom-ñett la te fukk la takk ñu gërëm ko sant ko bu baax a baax ci jëf ji nga xam ne defal na ko football ancien football katu Barcelone bii di Lionel André Messi ngeen gis ko noonu te ji daanaka dana taxawalo ju fële ah, ca Paris Paris nag du doon Paris Saint-Germain waaye Paris ca capital ba nga xam ni foofee wala na ñuy joxe li nga xam ne mooy trophée ah, bi di ballon d'or bi nga xam ne Lionel André Messi ñëpp nag commencé nan doyloo ni gone gi poul ga ngattaan mi nga xam ne daanaka mu sëpp gaa yi fële ci Arabie Saoudi dana ko téye loolee nag ñu mën koo bàyyi xel France Football moom moo koy joxe di trophée boobe nga xam ne yàgg na lool car masala waaye loolu leen André Messi jox googee ñu koy jox nag daanaka fi mu toll nii ñu bari ñu ngi ci doon xaar Erling Haaland ak Mbappé waaye loolee lépp boobu mu chance mën naa nekk xu Cubrero kii di dayangu ngeen gis ko noonu moog Pedri dana dellusiwaat Euh, fële euh, ca match bi nga xam ni gone Barcelone yi danañ ko jàkkaarloo ak équipe bi la nga xam ni mooy Real Sociedad kon gars yi génnagun Real ndax futti yi leen Real Madrid futti woon fi mu toll nii solaat nañu seen yére taxaw jot nag war a relever défi bi taxaw jot nag war a am match boo xam ne danañ ko football ndax championnat bi demagul fenn ndax catalan yi supporters yëpp ñi ngi topp ci seen ginnaaw nag leen waggarlu bàyyiloo leen xel match boobee nga xam ne am na njariñ lool tey match boobee buñ ko gañee dana indiwaat moral ci biir équipe bi nga xam ne moral ba ñu ci bari fi mu toll nii moral ba nekkatu fa ndax moral ba tas na waaye loolee lépp du dara ñu gërëm leen encore une fois wax leen ni yow mi may door a dab ci xibaar xibaar yi fii ñu toll mën ngaa amee lii di vidéo bi bu la neexee mën nga ko partager def sa commentaire bu fekkente ni mën nga ko boo ko mënul nga coppati li nga xam ne mooy kër yi Bellingham moom it ngeen gis ko noonu fi mu toll nii mooy belli ci dëkk bi ñetti fan sëngam yoo xam ne foo laal ci nga goo xam ne nit ñi ñu ngi koy commencé am si moom Bellingham moom nga xam ne ab militaire la waaye militaire boo xam ne fi mu toll bi mu toll la mu ca dugal ci ay bit sax sax daanaka eh, jigéen a la mu dugal fële ca Dortmund ci ay bit ci ay at kon loolee daanaka fi mu toll nii nekk na loo xam ne lu am solo la gaa yeneen information eh, ci kanam tuuti woy leen dinu topp